gisuñu ko te seeni ndaw ñoom ñëpp ña nga fa man maa wax tey jii li ma doon seere ci suñ Moussa Nawel ak suñ Mountakha ñi ma am maa ngi yëkkatiwaat président Macky sàll teg ko ci sama wet di ko seere nga xam ne li ma wax bu doonoon dañu waa war a woo tey procureur de la république bu ma wooyee lu ma wax benn dinaa wax fukkam mu gën a leer kon xam naa li may wax soxna Aïda Diallo li mu def ngaa bu kenn nit mosu ko fee def kenn mosu ko fee def te li ñuy wax ne ngaa bu nit boo yoree sa di wax sikkas jàmbur boo ko dee wax bu doon bu doon bu doon def fukki fukki foo wax nga fukk xanaa am na am na ci juróom yu baax wala juróom benn yu baax mais liñ wax kenn ku nekk lu bon ngay wax ci moom te koo bari na ci dëkk bi ci àdduna si ñoo xam ne nii ñi ngi wax ci soxna da Diallo fu nekk ci àdduna ñi ngi wax te bari na ci ñoo xam ne nii seen mënuñu seen seen jabar wala seen doom wala seen rakk bu meloon ne soxna da Diallo ñu sant yàlla ñu ci bare bari ku ci nekk bari ñu ko bëgg a def def soxna bari nañu ko bëgg a def rakk bari nañu ko bëgg a def doom loolu nag su amut yàlla def ko ni mu ko def am na tuuma yu baree bari yoo xam ne ni boobaak léegi damaa am kilifa sëñ Moussa mooy sama buntu teyit dafa noppi ma noppi waaye nag lii may wax waxuma ko ci sëñ Moussa waaye maa ngi koy wax ci sama dëkk bi ngaa bu sama maam moo dalal sëñ Touba moo dalal ku fi santuloo kon su ma toolee ba ñi santuloo jiital ma ma nekk seen kanam di jiite jumaa ji su may wax war na maa wax li ma xam tak bi ràqib ak àttit laa gën a ragal ci ku yàlla bind te li may wax bu dee lu baax ñu ngi koy bind fii bu dee lu bon ñu ngi koy bind fii kon ñooña laa gën a ragal ci ku yàlla bind kon seere nit sax boo ko defee nit ka mën na fa man ngaa seere sa baay génn fee sa baay néew fa mën ngaa seere sa sëriñ génn sa sëriñ néew fa mën ngaa seere sa sa jëkkër génn sa sa sa jëkkër néew fa mën ngaa seere sa sa jabar génn sa jabar néew fa waaye ñii moom foo nekk ña nga fa yàlla foo nekk ma nga fa sëñ Tuubaa ba muy jàngale tomb da doon wax ne tawhid de mën nga cee bind téere yoo xam ne sax mën naa toll ne alxuraan wala mu ëpp ko waaye ñaari tomb yi nanga xam ne foo ne yàllaa nga fa na nga xam ne lu am yàllaa ko dogal mu jeex tawxiit a ngi noonu kon loolu su amee yàlla mi ma tiim xam na ne bu ma eggoon am na lu may denc du ma ko waxagun waaye am na loo xam ne nii wax nañ ko ci dëkk bi wax nañ ko ci soxna Ayda Diallo sama digganteek alkuraan dara amu ci billahi lasi laa ilaha illa huwa soxna da Diallo tudd doom ngaabu takkut ab say ngaabu Saliou bu ma ko takk euh, euh, euh, ki ko jaayoon xar maa nga ne nday a Booy Adja Dégeen Fay mami ñi ngi taalibu sëñ Basiiru la moo jëkkëram ci ñi doon tool toppatoo wàll wérgu yaramu waa kër sëñ bi ci amoo kaat mooy borom këram soxna si ba ñuy tudd doom yaag takk say ab perfusion lañ ko sampal euh, mu tëdd fi mu tëdd mënu faa jóg kon suñ accès ñee jël ay image di ko yóbbu ci suñuy kilifa ñi ñu fi wax ñëpp su xañ na kuñ fi dem ca moom suñ kilifa la mais suñ jëlee dara yóbbu ko ci suñ kilifa te li jël ñi ko jël eh, baaxut jox ko kilifa gi bu kilifa ga yóbbawaatee ci geneen kilifa itam bu àgg arrivé ba eh, eggee te arrivé ba fekk départ ba baaxut it sëñ ba la may gis du doon lu baax te sëñ bi kenn waru koo wan lu bon sëñ Muntaxa buñ leen laaj kër sëñ Basiiru fii ci ngaabu eh, fii sama kër gii lay doon kon fi joxoon ab lettre na yóbbu ko daaru mi nam sama kër nga koy yóbbu fii sëñ Basiiru moo moo moo moo sanc kër gi ci ci ci ci ci ci boole ko sëñ sëñ sëñ sëñ Mbay Diouf ak sama sama baay mu jox ko fi kër boobaak léegi baatub sëñ Basiru moo fiy dox bi mu fi jógee sëñ Moustapha Basiru fiy dox bi mu fi jógee it baatub sëñ Muntaxa moo fiy dox ba fii may wax ak yow. li li tax ñuy wax nag ñu jàpp ne aw ay dafee am ak dañoo war a rey nit ak dañoo war a taal nit ba ma dégg ay ñoo xam dañuy menace yooyu di ko def ñooñu ñoo gën a tax may wax ndax loolu suñ ko suñ ko waxee bés buñ fi rayee nit wala ñu taal kër nit. lépp ci yan bi Sëñ Muntaxa yan ñëpp xam nañu diis na waaye danañ ko dolli ab yan ndax daañ lu mës am ci jamono Sëñ Moodu Moustapha ba agsi ci eh, sëñ ah, sëñ Sidi Muxtaar amu fa tey am na ci jamono Sëñ Muntaxa kon loolu kenn bëggalu ko ko su boobaa it sëñ kër sëñ Basiiru ñoo ci moo ci ëppalewaat ndax ndax ndax ndax ci kër sëñ Basiiru la bokk. léegi kon tey jii nga waaw waaw ngaa bu koy ñu ngi nii laaj leen ñoom ñëpp ñu ngi nii ñoom ñëpp nen li ñoom euh, soxna Ayda soxna Ayda man sëñ Modou Lo maa la ne ñëwal ngaa bu sëñ Modou Lo imam ñëwal ngaa bu kenn ku la mën a teye ñëw ngaa bu amut waa ngaa boo ngi nii tey dafa doon marché bi genn wàll gépp dem ci marché bi waaye ngaa bu ñëpp a ngi nii ñu sant loo ñëpp ci seen kàddu laay laay wax sax tey man sama kàddu bopp laa doon wax waaye ñoo ma woo dugal seen kàddu ci biir te ku eh, nañ laaj ki fi xalifab sëñ Amsatu Lo ak xalifab seen kàddu euh, mi ngi nii ci man te ñoom ñoom ñoom lañ dénk barab bi xanaa barab boo dénkaanee sam xar boo demee ba di ko laaj borom xar ma nga kan ko dénkoon nga koy laaj ngaabu nag suñu am satu lañ ko dénk bu ñuy laaj ngaabu nañ ko laaj waa kër suñu am léegi loolu mooy wax ji léegi na ñëw kenn mënu ko fee tere léegi nag wax lañ li ñuy jël daal di ko yóbbu te te te te koy def nan ko bàyyi kaaraange sëñ Basiru nag xaaruma ci sëñ Moussa xaaruma ci sëñ Koso xaaruma ci keneen fi ma nekk lu nar a gàkkal kër sëñ Basiru sama bakkan bi laa ci gar te li ñuy wax lépp mu doon ay salte salte ki xajam xajam bu demee ba dal ci kaw yoonu murit bu boobaa sëñ Muntaxa dana ci janu waaye kër sëñ Basiiru kenn du ko ci appelé loolu daal mooy kaddu yi keneen ku ci amaat kaddu yu yu muy yu muy def mu def ko waaye soxna Ayda daal dalal ak jàmm ci ngaabu Seex Béthio la ne woon sëñ Modou Lo ngaabu imam sëñ Modou Lo ngaabu imam sama maamam moo ñu dalaloon moo moo dalaloon sëñ Touba kon nag kenn mënu laa aaye ngaabu nag yi nga joxe woon yi nga fi joxe nit ñi lekk nañ ko man nag am naa juróom benn nag a gileem man naari kajoor yi xaar man naa cee tudd ñeen ñetti nit rek mu ñu yóbbaale ñëpp xaarim jaañ ak ak ak ak Balla fàllu Sénégal la ma war a soxla ci màggal gi lépp def nañ ko ak ak ak ndar yi ak géwéli Louga yi ak ak ak ak ak ak waa ak waa Kër Baay defal nañ ma li war am ba soxlawu ma dara waaye nag lii ñu leen di jox ñu naan nag yi ku ko lekk poset laa ma tegal la ci fanweeri seex ak juróom-ñett yu dëkk biir Touba dem nañ ca noor ba tawagut ci soxna ay Diallo ne ko kat li ngay defal waa ngaa bëgg nañ ko ba jox na leen ñoom ñëpp kenn ku nekk la war ci sag màggal ba ña ngi koy def Touba nag yi Touba nag bu daganee naga di ngaa bu daganut loole ku ko jàng ci alxuraan wala nga jàng ko ci fekk nag ma ko wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu salaatu lazi fi هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر سلام